92 00. <laughs> yàlla neen def ak coonaam ngeen jàpp ma xëri la sëtub kocc barma bi naka talax lax réew mi rakkam rakkam jeeg rukum rukum jeeg layi layi bay Basiiru Jomaay Jaaxaar Fay ji ci fer pele ku corrigé yaa xam ah ku corrigé sa bopp Baye Abdoulaye Sow nanga def ak coonaam nga jàpp ma <laughs> Baye Abdoulaye Sow say lex dem na de nanga def ak xanaa noosoo yow am nga jàpp ma Baye Sow dégg naa la ngay wax. non personne ne peut pas me menacer il se trompe ou... ils ne pas ils ne connaissent pas mon sang ils ne savent pas d'où je viens c'est pourquoi dire certains militaires de moi fuir moi se <laughs> <laughs> parce que force reste la loi wax qui a ko Abdoulaye mi ngi waxe ci côté passeport diplomatique tay ci lool la né partager len vidéo bi aimé ko bu baakha baakha baax xëri la ko ci barma bi euh, Baye Abdoulaye Sow na def ak ciono muñal force restera la loi yéena ko waxon ci faire pele ku corriger ya xam ku mérite nga mat sa bakkan wax deug yalla force restera la loi nga ne ken mun la dem fenn ken mun la tee tukki ku man na mi ngi nax bopam manam yeen seen bop ak seen xeli bop da ngeen a ni Ousmane Sonko da len xokatal yeen yeena a xam li xokatal barke yowmal khulujil basar Bay Sonko talu len ci fer pele Ousmane Sonko mu sell mi talu len ta nga bàyyi yey guro nak au suivant na keneen ñew mais la loi organique de l'Assemblée nationale mën ngeen ko lire article 106 dafa wax ne. les députés au même titre que les ministres dañuy un passeport diplomatique la loi la. <laughs> cay le passeport diplomate Je ne ko pas bay Abdou Mbaw ci fer pele mom Kirikou Alliance Cous Condron ma nga article 106 Manam L 106 falay waxé mu article bo xamni wax deug yalla xam nga rew mom da bari article ci fer pele ku ya yaa xam Baye Sonko nak en cours de les les articles ci fer pele Kirikou dana def ak coono démb assemblée nationale curux curuxi na jayi jayi rakkam rakkami comme nam daan demee assemblée nationale euh, wax dëgg yàlla yéen xam ngeen ni assemblée nationale bu Sénégal chaque jour day mel dañ faa sotti cuuraayu dëmm démb Baye Abdou mbaw ci L106 la génn muy maanaam député bu nekk dafa war a am passeport diplomate ndax nee na député yi danoo bokk maanaam même statut ak ministres yi maanaam ndombal tànk yi ministres yor exemple ndombal tànk yooyu la député yi yor borom xel yi laay waxal nag écoutez attentivement bàyyi du mbaw bi mu lay layee yëkkati kàddu yooyu madame la ministre des affaires étrangères dafa jóg di ko tontu mais tontu yu dese naa leer parce que mayuñu ko mu wax xam nga ñoom ñoom buñ xasee wax ba pare dañuy ruube léegi euh, man xarit naa leeral lépp te ku ma doxat ma day la ci fair pele à madame la ministre des affaires étrangères vous avez la parole. il se trouve que le 28 mars après l'élection présidentielle le 28 mars 2024 un nouveau décret est sorti et ce nouveau décret a été signé après l'élection du président Bassirou Diomaye et c'est sous ce ce décret du 28 mars qui qui inclut

ñii ñoo xamul ay waxtaan ay kaay ñu pelloo xamuñu loolu ñii xamuñu loolu de ñii boo demee assemblée nationale Irak Irak lay doon seenu làmmiñ lañ yor foog ni li ñuy wax kenn xamu ci dara te alors que li ñuy wax xale yu liir yu ñetti weer yi na ci réew mi xam nañ ne li ñuy wax teguwul. madame la ministre maa ngi jéggalu xëri la satub kocc barma bi nee la 17 6e mois 1937 ak kaddu ballaa ji plus précisément ginnaaw yowmal xiyaam kaddu yi dinaa leen ko jottali. madame la euh, ministre des affaires étrangères femme mu doon waxee ndax député yi fi ni, li sen problème mooy les passeports diplomates dañ ko bloqué eh bàyyi Sonko ko bloquer ci faire pele ku kurise yaa xam ku kurise fa jaay poobar ak laalo voilà sont Sonko les passeports diplomatiques dañoo toll moment bi ci xoolaat ko Abdou Mbow les députés sont même statut que les ministres c'est faux c'est faux vous bu qu'il dafa am Abdou c'est le président de la République Macky Sall xëy na kon moo ko wala moo ci def wala moo ko ci bolé. c'est faux amul député da nga le député est même statut que les délégués personnels du chantier xamal lolo Abdou on a touché député yi ay délégué lañ député délégué la bu faites xëy loi bu Sénégal nga L106 nee na bépp député boo xam ne dafa nekk ci assemblée nationale di liggéey maanaam di doon député dafa war am passeport diplomate néew ma nekkul ci loi bu Sénégal mais bu fekkee nekk na ci bàyyi Sonko loolu dindi ko ci bu fekkee mi ngi ci bàyyi Sonko war mbiij waraam mbiij ni ko dindi ci faire pele ku kurise yaa xam xëri la sëtub kocc barma bi madame la ministre des affaires étrangères moom la doon leeral nii article bi xay na euh, dafa desee leer na parce que mayuñu ko mu wax ah bu ma déggee xëy na da koo bëgg wax ni article bi euh, maanaam président de la république xay na daf ko suspendre wala daf ko aj wala danga nga ciy waxtaanaat parce que mi ngi naan ko euh, article boobu noonu wala affaire passeport diplomate yi le 28 mars 2024 la ci président de la république addu mo xam ci bind la mo xam ci ay cadeau la xawma lan moko ko xawma lu xew xawma le 28 mars 2024 lan le président Bassirou Diomaye jaxar fay manam waslu ak ci ci passeport diplomatique mais pour juste xamal len ni passeport diplomate député euh, ab député ensemble national waru ko am on tant tous ces du ngeen car rapide du ngeen bis du ngeen njaga njaay ay député ngeen yen ak délégué personnel yi nek ci chantier yi benn statut ngeen yor ay délégué ngeen rek ay délégué ngeen duma ko du ko rekkal sax duma ko dongal parce que député dara la député mooy nga xam ni maanaam mooy mooy taxawal askan wi biir assemblée nationale di waslu ci àq ak yelleefu doomu aadama yi ak doxalinu réew mi yéen ñun population bi yéen la ñuy yóbbante ngeen ñu ko jottali maanaam euh, njiitu réew mi xam nga kon boo taxawee fii nga ni délégué nga ni nga ni nga ni député même statut même mom ak ministre ñoo bokk euh, euh, euh, euh ndombal vous ci nima ko mën waxé hein ah Abdou vous bu féké Macky Sall da day deñ ci faire pele ku xam député député ah man de ci ma bu changé wul vous def ak changé wul député ab délégué la ci nima expliquer comprendre bu féké changé wul député ab délégué passeport diplomate du doomu aadama bu nekk moo ko war a yor même bu fekkee tu es diplômé am diplôme bu ne ci àdduna dafa am rôle booy jouer wala ngay servir sa réew loo xam ni xëy na mënta ñàkk sa dem ak dikk bari na lool yéen yen député fu ngeen dem bu ngeen xëyee taasarata dem assemblée nationale xuloo ba ngoon jot ngeen ñibbi joxuñu leen tous ci faire pele ku kurise yaa xam xëri la sëtub kocc barma bi mën na kànja mën na maafe moom sëtub kocc bi maa ngi tuub parfois day laaj ñu leeral ci fair pelé pour xamal yen yeen yen député yi yeen ak délégué personnel yi nek ci santé yi yeen a bok ben statut lu len wok xuri len ay délégué ngeen pour moy lèr rek pour ngeen am dégg-dégg sénégalais borom xel yi nak lay waxal député ab délégué la ci fair pelé ku course ya xam nday Fatou njaay Sen tv talax-laxi rakam rakami lay lay man xëdir sutub koccu bi dama ci bëgg lu parce que yëkkati na kàddu yo xamni ni xëy na am na solo ci moom mais dafa ñàkk solo ci man parce que am na ci loo xam ne boo koy wax demal ni démb fekku la fi gars yi attachez vos ceintures immédiatement xëri la sëtu Kocc Barma bi mën na kànja mën na maafe tey bu kenn ree on a touché on a touché oh Ndeye Fatou mu gaaw dafa am une justice à double vitesse ñu ne fii kumba am ndey kumba amul ndey moo fi am door doom làq doom te nag dafa mel confirmer parce que commissaire vous bu fekkee ne lii ñu koy live ba mu ni dafa am premier ministre président am lu expliqué alors que pour régler l'affaire il fallait juste un petit communiqué de démenti pour dire qu'il y a des propos supposant un quelconque malentendu entre le président et le premier ministre dénoué de tout fondement nous, réglé la question mais du nit pour ah non non peut-être le commissaire Keïta a dérangé et commencé à devenir encombrant mais derrière cette arrestation du commissaire parce que jamono est passé defoon naa feeg moom émission seen jotaay te loolu moo ko waraloon dañ fi un comité moom ak Mamadou Abdoulaye Gissé, ak une troisième personne ne dañoo dem conseil constitutionnel déposer fa une lettre pour wax conseil na la posture du président ci dirige ci ni muy diriger ak ci décision yi est-ce que c'est lui qui prend les les décisions ou pas ba demoon sax demander une autorisation de marche mais malheureusement ñu gàntaloon leen ko loolu jàll bi fi amee euh, coowal Cheikh Oumar Diagne amee moom mu bokk parce que j'ai suivi le live de Sarr le sénégalais d'Allemagne hier ñu expliqué ne moom commissaire kayta dafa àndoon ak ñi doon demandé marche Massalikul Jinaan vendredi dernier gannaaw bi nga xamee ne dañu bëggoon a ñaawlu waxi Cheikh Oumar Diagne mu bokkoon ci comité d'organisation bi et que bi ñu defee même demande de marche bi moom commissaire moom lañ demoon di ko entendre à la police comme boo defee demande déclarant yi day am euh, kuñ ciy tànn wala ñuñ ciy tànn déglu leen pour laaj leen motif beeg yooyu noonu ak ndax suñu dinañu respecter heure yi ñu leen di autoriser genre yooyu moom moo demoon pour répondre à cela léegi marche bi boo xoolee jour bi mu waree am c'était le vendredi après la prière moom ci lañ ko convoqué mu daal di dem wuy ji même sax il paraît que am na ñu ko doon wax avant muy dem wuy ji ne ko commissaire bul wuy ji parce que vendredi en général buñ la ci convoqué c'est parce que dañ la bëgg a téye yow xam nga loolu mu ne non non man je suis un républicain su ma sama nguur woowee wala sama police wala sama yoon woowee damay dem wuy ji donc je pense que le commissaire activité yi mu commencé di mener en politique ak engagement bi mu am dem nag sax bay am ay ramifications ci colère mouride ci Omar il est devenu encombrant mais est-ce que c'est une raison pour incarcérer ce commissaire bi nga déjà mak la. <laughs> a Fatou Fatou Fatou ci dara dara dara dara non Fatou Fatou am nga fit non euh, euh, le commissaire Kaita. est-ce que jaroon na ñu koy ñu koy defeere wala ñu koy tëj parce que mag la yow xanaa imaam ndaw mu mag ma biñ koy denc ci kaso bi ba yàlla def bis ñëw ñu bàyyi ko tegu ci ay ay ay weer wala ay at wala ay fan mu dem yowmal xulóojil basar faatu yow fan nga nekkoon Ndeye faatu Ndiaye Ndeye Fatou Ndiaye bi xale yi def marche pacifique ñu leen jàpp leen tëj ci kaso bi yow fan nga nekkoon bi ñuy jàpp xale bu jigéen bi bu yàggul dara ñu jàpp xale bu jigéen bi bu yàggul dara dóor a dóor dóor dóor ci manifestation yi ba mu tas ñu yóbbu yow fan nga nekkoon bi ñuy jàpp journaliste yi di leen dóor ay bal ah ay lacrymogène yow foo nekkoon ah bi ñuy toroxal mag ñi di jàpp Ousmane Sonko di ko barricade cinquante cinq jours yow fan nga nekkoon dama lay laaj rek la question s'il vous ba yow eh force restera la loi la Ndeye ci fair play ku corrigé yaa xam ok samay wax du ci sori parce que waxoo waxu nit voilà force restera la loi yow bu fekkee li fi jàll lépp gisoo ko yëgoo ko tinoo ko lii la arrangé ci lii ngay wax parce que gouvernement bi fi nekk arrangé wu la yaa jaay keccax ndëqata war mbiij waraa mbiij doxal point amul virgule ku corrigé yaa xam à propos des passeports diplomates bu ngeen gisee li tax la président Bassirou Diomaye jaaxaar Faye xëy na bloqué passeport diplomate yi pour l'instant ay jamono bi fi Macky Sall nekk dafa am trafic de passeport diplomate dama leen ci tegal benn vidéo boo xam ni nit koo xam ni jàngul français jàngul olof bi mu nàmp ah wala li mu doon sax dégg ko moom bu baax mais dafa am passeport diplomate mu doon loo xam ni bokkoon na ci li tax le président Bassirou Diomaye Diakhar fay artu ci artu maanaam ci passeport diplomate yi xool leen maire bii di wane passeport diplomate di xamal nit ñi ni leen bërki déem boo njaay ko ko jox trois jours la am mu génn seetaan leen vidéo bi ma ñëwaat balɗe mi nelano ɗum ko passeport diplomate la keɗen legna ko ngay ci trois jours je suis allée un dimanche le lundi je suis allée au ministère des affaires étrangères on m'a pris les empreintes et tout tout tout ça a été envoyé au niveau de la présidence lundi mardi mercredi le passeport est sorti Li <laughs> motax tax Bassirou Diakhar Fay bloqué passeport diplomate Coup d'accord ci le ministre des affaires étrangères bi pour l'instant ku d'accord ci li mu wax laalal zem partager vidéo bi dama ni gars yi xoolal sonkoy jomaay jomaay sonko on a tout mënoo leen a manipuler askan wi mënoo leen a wax loo xam ni bu leen yaakaar na ñun dañoo toog nii rek ndeysaan di wax nit ñi ree ngeen yaakaar nous sommes des fous ou bien nous sommes des vauriens non non non am na loo xamante ne bu xewee dañuy bàyyi lépp jàkkaarloo ngeen wax leen li xew passeport diplomate yi xoolal xam nga nu mu demee woon njëkk a séddoo gagné. kun yaakaar ne juróomi nit ak sa ginnaaw ñu baabe la passeport diplomatique kun yaakaar ni meeru mbootaay nga mën nga leen indil fukki nit ñu jox la passeport diplomate léegi loolu fan la tege ci yenn raison Kaolack Ngësobin jam ñaajo am fuuta wala gosaas neen def ak coono am ngeen jàmma ah? luppe luppe encore une fois amul benn député bu ñu mee taxaw fii naan les députés sont même statut que les ministres loolu moom bu fekkee loi bu Sénégal sax daf ko daf ko daganal maa ngi leen koy ñaan ci faire pele ngeen dindi ko parce que député député Le ministre ministre c'est une mission sax c'est une mission bokul waye ba jamono baax député ab délégué la waye borom dégg-dégg yi nag laay waxal ci faire pele nak ku ya yaa xam la science est levée ok